alhamdulilahi allazi bi nihmatihi wa jalalihi taatimu saalihaat wasalaatu wasalaam ala xayril bariyati seydina wa ala alihi wa sahbihi wa man waala ñu ngi leen di nuyu beneen yoon dikkaat ak yéen ci suñu émission bii di wama ñu ànd seeg waa Africa 7 ñu ngi leen di ndokkeel di leen wax ramadan karim kullu amin wa antum bi xeyr bi alfi alfi xeyr ñëwaat nañ tey ba tey ñi ngi ci lislaam waaye ñi ngi jëm nag ci ñetteelu escalier di ñetteelu ponk di ñetteelu étape ci biir diine lislaam mu di at taqwa mooy ragal yàlla baatab ragal nag foog ñu firil leen ko ba pare pour ngeen gën koo comprendre ragal ñetti ñetti ragal moo am dafa am ragal bi ñuy wax tiit am ragal bi ñuy wax njàqare après nag am ragal dëgg-taal te soo demee sax dans la langue française ñoom différencier nañ ko dafa am la peur am l'angoisse am la crainte révérentielle alxuraan tamit noonu la ko wuutale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dafa am xawfu am xusnu am xashiya loolu lépp nag soo ko boolee moom la ñuy wax at taqwa <coughs> ragal yàlla dafa am solo torop torop torop ponk la boo xam ne ci diine lislaam yàlla rek moo xam ni mu toll at taqwa mooy imtisaali awaamiri wajtinaabi nawaahi fi zahiri wal baatini kama yarda allahu laa kama tarda soo bëggee xam taqwa mooy ngay def digle yi comme nanga ko mëne bàyyi mboolem tere yi ci lu feeñ ak ci lu nëbbu nam neexee yàlla déet yow nim la neexee noonu la ulama wu siira yi firee at taqwa Mawlana Cheikh Ibrahim noonu la ko firee Cheikhu Tidiane noonu la ko firee mboolem wàllu yàlla yépp noonu lañ ko firee ñu ne daal ragal yàlla mën nañ koo tënk ci ne mooy def digle yi bàyyi tere yi tere yépp ci lu nëbb ak ci lu feeñ ni neexee yàlla waaye déet yow nim la neexee loolu mooy taqwa taqwa moom ci boppam nag ñett yooyu nga xam ne moom la taxawee ñetti ragal yooyu xawfu mooy nga tiit tiit mooy nga gis dara rek daal tiit sa fit wi dem comme nga jékki gis gaynde wala nga jékki gis jaan wala nga dégg jékki gis ay balu fetal yuy tàkk loolu mooy tiit dafay jàpp doomu aadama bi te yàlla mu ne maa leen di nattoo nattoo tiit ngeen di tiital dama leen di tiital léegi-léegi moom yàlla walu nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juuxi wa naqsin min al amwaali wal anfusi wassamaraati wa bashiri saabirina lazina ida asaabatkum wa inna ilayhi rajiun ñi nga xam ne man yàlla danaa nattu danaa leen nattu yéen jullit yi ci tiit léeg-léeg ma tiital leen jékki-jékki benn dënnu ne tëll nit ñi tiit ci dënnu gi dana leen tiital tamit ci xiif yàlla dana ñu nattoo léegi-léegi xiif xiif xaw ñoo ragalloo tiital ñu ak alal guy wàññeeku ak tool yoo xam ne meññi wuñ nawet bi baaxut ak ay bakkan yuy dee jékki-jékki sa baay dee wala sa yaay dee wala sa mbokk dee dafay tiital yooyu noonu yàlla dana koy def léeg pour tiital tiit nag moom lu circonstance yàlla dafay am ci benn jamono rek après mu daal di dëñ beneen ragal bi nag moom mooy l'angoisse kooku nag moom c'est une peur mais une peur latente dafay yàgg ragal la goo xam ne du diñ ci yow bi nga juddoo ba léegi ragal googu mu ngi ci yow loolu lañuy ñuy wooyee angoisse mooy comme ni nga ragalee de kenn ñemewut dee ak seegut waaye dañ koo ragal njàqare la ñu def angoisse la ñu def waaw cas conscience lañu def ndax ñi dem xamuñu kenn kenn ñëwaatut ba pare daf lay bett doo xam kañ lay ñëw laa yaxti ilaa baxtatan du dikk lu moy ci mbetteel te ñun ñëpp danañ dee kullu nafsin zaiqatil mawt kullu man alayha faan kullu shay'in xaaliqun ila waja moo tax mu def ñu njaqare waaw mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi jaamu yàlla ñu ci bari dee googu moo tax ñuy jaamu yàlla mais su dee amutoon ñu bari danañ bañ a jaamu yàlla moo tax yàlla tegal ñu dee am na beneen boo xam ne mooy xashiya kooku nag mooy la crainte révérentielle loolu mooy dëgg-dëgg ragal danañ ci ñëw ci kanam tuuti xaw fu tiit bu dul yàgg la ndax soo fàttalikuwaatee yàlla rek mu dem xusnu tamit tiit gu dul yàgg la ndax soo fàttalikuwaatee yàlla rek mu daal di dem tamit donc ñaari ragal yooyu yëpp yàlla mooy ki koy dindi ci moom dong la ñaari ragal yooyu di dañee moo tax ku ragal yàlla mbindeef yëpp ragal la waaye ku ñeme yàlla mbindeef yëpp ngay mujj ragal moo tax ñi ñeme yàlla dañoo ragal mbóot ragal janax ragal jaan ragal ñàkk lépp lañ ragal ndax ñeme gi ñeme yàlla waaye ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla lépp leen di mujj ragal léppay mujj ragal leen moo tax ki rag ki ñeme yàlla dafay ragal ñàkk waaye ki ragal yàlla moom dafay ñeme ñàkk dafay ñeme xiif ñeme coono ndax ragal gim ragal yàlla dootul faale mbindeef yooyu yëpp dootul ragal xiif parce que dafa ragal yàlla dootul ragal ñàkk parce que dafa ragal yàlla dootul ragal mbindeef parce que dafa ragal yàlla intempérie ak conjoncture yeeg vicissitudes yi nekk ci biir àddina bi yëpp amul dara lum ciy ragal lu ñëw rek mu dékk ko muñ ko ndax ragal gim ragal yàlla moo tax waaye koo xam ne nag dafa ñeme yàlla kooku moom lépp lay mujj ragal su taw sax day ragal taw dënnu mu ragal lépp la ragal ndax ñeme borom mbindeef yi yàlla nag boole bàyyeekoo mbindeef yi mbindeef yi di ko tiital rek fu mu toll waaye soo wéeroo ci yàlla ba yàlla méngoo la ragal ak njàqare dootul la laalati moo tax yàlla wax ne ala anal awliya allah laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna allazina amanu wa kaanu yattaqun bushra lahum fi lxayaati dunia wa fi l gaa yi nga xam ne ñi ngi nekk ñi méngoo yàlla yàlla méngoo leen ñu taqoog yàlla yàlla taqoog ñoom ñooñu du ñu tiit du ñu jàq bàyyi su daan firi aaya boobu laa xawfun alayhim wala hum yaxzanoona dafay wax ne mu ne laa xawfun alayhim fi dunia wala hum yaxzanuuna fil axira ñooñu duñu ragal fii ci kaw suuf alaxira tamit duñ fa jàq ndax kan lu tax loolu mooy àndoo gi ñu àndook yàlla ñooñu sax dem nañ ba yàlla wax ne heure boo xamante ne nii nit ñi wéeru nañ ci man ànd ak man ba ma def leen ay waliyu yàlla képp ku leen lor wala nga attaqué leen man yàlla déclaré naa la guerre man azali waliyan faqat azantahu xar bi képp koo xam ne contre nga sama benn waliw man yàlla déclaré naa la guerre yàlla muy guerre ak yow nag yàlla nañ ci yàlla musal moo tax xawfu ak xusnu dañuy dëñ su fekkee da nga ànd ak yàlla mais ñi koy ressentir lu yàgg mu sonal leen torop ñu xamal ne dañoo sori yàlla moo tax mais képp ku jege yàlla rek la peur ak l'angoisse dafay dëñ ci yow te ñoo loolu mooy indi stress bi am lépp fi mu nekk nii ci kaw suuf feebar bi gën a garaaw ci kaw suuf duwut coronavirus feebar bi gën a garaaw ci kaw suuf fi ñu toll nii duut ay sida duut ay cancer mais feebar bi gën a garaaw fi mu nekk nii mooy stress te kenn amut garab bi lu muy yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo garab gi soo demee pays bu mel ni France nga xam ne niñ développé nga dem pays bu mel ni Amérique wala nga dem pays bu mel ni Chine wala Russie li ëpp lu lu kuy luy rey ak di yàq foofu mooy le stress France c'est le premier pays consommateur de antidépresseurs dans toute l'Europe dañuy naan ay garab rek pour faj stress kenn mënu ko faj ndax angoisse ak peur bi ñuy dund jamono bu nekk waaw ñuy angoissé jaaxle njàqare sori giñ sori yàlla rek moo koy def soo jegee yàlla loolu dootu la laalati nga àgg nag après soo amee xawfu am xusnu nga yéeg nag léegi ci xashiya nga yéeg ci xashiya nga xusuux xusuux mooy dëgg-dëggi ragal waaye yàlla def na foofu tamit benn nuance ndax wax na mu ne itaqulaa ragal leen yàlla doo xam ragal yàlla bi ban degré la nga ko war a yóbbu doo xam bam volume la war a am mu ñëwaat daat ni itaqulaa taxtum ragal leen yàlla comme ni ngeen mëne haa ñaar yi wute na foofu fii daf na ragal leen yàlla fii mu ñëwaat ne ragal leen yàlla comme ni ngeen mënee feneen fa nag mu yéeg ca maqaama ba ba gën a kawe booboo gën a yéeme nag mu ne yaay yaa ayyuhal lazina amanu ittaqulaa xaqa tuqaatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal te bu leen dee te nekku leen jullit moo tax képp ku dee dem ca yàlla te nekkoo jullit sa musiba tàmbali na yàlla mu ne bu leen ñëw ci man mukk te nekku leen jullit maanaam réception bu rafet jullit ñi rek la ko la ko réserver keneen ku mooy loolu rek mer la leen di xaare yal na yàlla musal ci mer yàlla donc ngeen jàpp ne taqwa yéeguwaay boobu la yàlla kenn warul waru koo tiit yàlla warta njàqal kenn waaye dañ koo war a ragal nag ragal googu ñu koy ragal nag mooy ñuy def li ko neex di bàyyi li ko naqati ragal googu nag nga xam ne mooy xushu nga xam ne du peur du angoisse mais crainte révérentielle mooy ragal gi nga xam ne par exemple da nga ko ragal sa chef nga nekk ci ab structure di liggéey estime boobu ak respect boobu ak crainte boobu nga ko ragal loolu ragal boobu la ndax ragal yële li nga ragal bëggoo dajeek moom te buggoo ko jege gaynde buggoo jege gaynde bëggoo bëggoo xam gaynde bëggoo bëggoo gaynde jege la dee tamit bëggoo dee jege la bëggoo dee waaye ragal gii nag moom ki nga ragal da ngay bëgg a taqoo moom mooy sa boos mooy sa sëriñ ragal gi nga ragal sa sëriñ mooy ragal gi nga ragal sa papa ragal ko sa yaay te crise de valeurs yi sax tax na doom yi ragalatuñ léegi seen papa yeeg seen yaay waaye pour man du doom yi ñoo ñoo indi loolu mais papa yeeg yaay yi ñoo démissionné moo tax ragal googu doom yi daan ragal pàppa yeeg yaay yi daal di wàññeeku léegi wala boog ragal gi nga ragal sa jëkkër jigéen ñu bari ragalatuñ seen jëkkër léegi waaye ci jëkkër yi la jëkkër yi ñoo def ba jabar yi ragalatuñ leen wala boog ragal gi nga xam ne moom la jëkkër di ragal jabaram bu njëkk jëkkër yu baax yi dañ daan ragal seen jabar respect lay nekk loolu danañ ci ñëwaat ci suñu yeneen leçon sociologique yi ndax respect ak estime ñaar yooyu dañoo niroo waaye dafa uute respect moom droit la respect respect devoir la mais respect droit la loolu danañ ci ñëw ci kanam question philosophique la ndax ki ngay respecter loolu da ngaa war a respecter ñëpp say ennemi sax say noon sax da nga leen a war a respecter inconnu yi sax da nga leen a war a respecter garab yi sax da nga leen a war a respecter waaw lu ne danga ko war a respect mais estime nag moom li nit kiy def di ko wax mooy tax ñu estimer ko wala ñu sous-estimer ko donc ragal di di di di di di di di attaqwa noonu la mel yàlla wax na mu ne yaa ay ayyuhan naasu taqu rabbakum allazi xalaqakum min seen waaxida yéen ñi nga xam ne yéen yéene ay doomu aadama na ngeen ragal yàlla mi leen bind ci benn bakkan xool yàlla mu xereñ mu foor mi ba aadama la bind rek ñun ñëpp mu ñuy génne ci aadama ak awa mu ne ragal leen buur boobu buur boobu leen def loolu dañoo war a ragal yàlla tamit ci suñuy relation ci suñu lien sanguin yi ci suñu famille yi ci suñu parenté yi foofu tamit dañ faa war a ragal yàlla parce que yàlla mu ne danaa leen ko laaj kenn ci ñun tànn papaam amul kenn ku ne papa bii laa bëgg mu jur ma amul mosta am amul kenn ku tànn yaayam amul kenn ku ne jigéen bii laa bëgg mu nekk suma yaay kenn du tànn sa ndey bi nga tànnut sa baay tànnoo sa ndey ci nga bañ a tànn say bàjjan parce que say bàjjan ñooy say mbokki baay ci nga bañ a tànn tamit sa tànta kenn du tànn yumpaañam kenn du tànn say freer kenn du tànn say sœur kenn du tànn say neveu donc famille boobu yëpp membre bu ci nekk rek yàlla moo la ko tànnal yàlla nag mu ne danaa leen laaj loolu loolu ma leen tànn danaa leen ko laaj kon ragal leen yàlla ci sëy boobu noonu ragal leen yàlla ci famille boobu noonu sa diggante ak sa sœur nga war cee ragal yàlla lii àq ci moom nga war ko ko jox sa diggante ak sa frère nga ragal ci yàlla lii àq ci moom nga war ko ko jox sa digganteeg sa ndey nga ragal ci yàlla sa digganteeg sa baay nga ragal ci yàlla diggante bu ci nekk rek nga war cee ragal yàlla sa dëkkandoo nga ragal ci yàlla dëkkandoo sax yonentu bi nee na sallallahu alayhi wa sallam faa war a ragal yàlla mu ne jibril daawud dëñ di ma digal ci dëkkandoo ba ma foog ne su ma dee dëkkandoo dafa may doon yàlla yàlla da daan wax jibril ne ko demal wax yonentu yàlla muhammad mu ragal relation ak dëkkandoo ragal yàlla fépp lay fépp sa fépp lay feeñ dafay feeñ ba ci ni ngay waxee sooy wax da nga war a ragal yàlla ci li ngay wax ndax wax ba lu fetal la su xasee ba génn kenn mënatu koo defar wax nga ko rek jeex na jëf bi tamit nga ragal ci yàlla waliyu yàlla yu mag yi dañu seen mutisme bi seen noppi yu bari yi loolu la woon noppi gu bari ragal gi ñu ragaloon yàlla moo taxoon ñu daan noppi lu bari moo taxoon ñu daan noppi te loolu suñ ñëwee ci quiétude incha allah danañ ci waxtaan ci mbiru noppi ak silence ni mu amee doole sa lépp da nga cee war a ragal yàlla say jëf mboolem acte yi ngay posé yëpp dafa war a teinté de crainte révérentielle da cee war a ragal yàlla ndax loo def rek bind nañ ko ba pare te soo bëggee bés bi ngay dajeeg yàlla gën ci sa bés yi ragal yàlla rek moom nga war a yor comme comme yóbbal comme viatique wa xayra zaadu a mooy gën di yóbbal mooy ragal yàlla yonent ko wax sallallahu alayhi wa sallam ib yontu yàlla aadama loolu la wax nit ñi ñim nekkaloo ragal leen yàlla ci la leen woo yonentu yëpp ci lañ woote Ibrahima ci ragal yàlla la woote ragal leen yàlla yontu yàlla nooxin ci ragal yàlla la woote ragal leen yàlla uxbudullaha wa taquuqu wa tiixuun ragal leen yàlla jaamu leen ko yontu yàlla Moussa loolu la woo waa bani Israil ñëw leen ngeen ragal yàlla da ngeen bàyyi tooj bi bàyyi ñeme yàlla gi yontu yàlla Insa loolu la loolu digle keroog bi ko xawaari yu yi di wax naan ko yaa isa ibnu mariama hal yastatih rabbuka an yanzul alayna maidatan min assamaa yi keroog lu mu leen wax xawaari yu ne yi mooy ñaandoon ak moom ñoo ñëw ne ko insa dañoo bëgg nga ñaanal ñu yàlla mu wàcceel ñu benn taabal mu jóge ci kaw jaww ji wàcc mu nekk ay lekk yu neex ñu lekk ndax dañoo xiif keroog daf na leen ittaqullaa in kuntum mu'minin ragal leen yàlla su fekkee ragal ngeen su fekkee ay jullit ngeen kon jullit su nekkee jullit rek li ñuy xamee ni jullit la pire mooy mu ragal yàlla insa ko wax ittaqullaa in kuntum mu'minin ragal leen yàlla su fekkee jullit ngeen kon première aspect bi ñuy xàmmee jullit mooy mu ragal yàlla mooy mu ragal yàlla keroog daf leen a wax ne leen ittaqullaa in kuntum mu'minin ñoom it ñu tontu ko nuridu an naxkula minha wa natma innu qulubana wa nakuna alayha min ash-shahidin loolu lañ bëgg nuridu an naxkula minha wa natma'inna xulubana wa naxlamu anna xad sadaqtana wa nakuna alayha min ash-shahidin lekk googu su ñëwee dañ cee bëgg a lekk suñ ci lekkee ba pare ñu xam ne ñun dëggal nañ suñu xol bi tamit gën cee dal ba pare ñu xam ne ñun danañ seede lii di ko nettaliwaat ñeneen xam ne yàlla wàcce woon na taabal bu jóge ci asamaan yàlla mën na lépp ñu xam ne yow yonentab yàlla nga yàlla la jox kéemtaan yi ci la doog a ñaanee allahuma rabbana anzil alayna maidatan min a assamaa'i takunu lana hidan li awalina wa axirina wa ayatan minka warzuqna wa anta xayru raziqin mu ñaan ñaan googu nga xam ne xam ko sax dafa baax di ko ñaan chaque suba teel dafay tax yàlla di la dottil wërsëg muy ñëw wërsëg danañ ci ñëw ci kanam képp koo xam ne bëgg nga ko rek soo jullee fajar bul nelawati ndax jamono boobu la ñuy séddale wërsëg yi képp kuy nelaw heure boobu doo am wërsëg képp koo xam ne soo jullee fajar ba pare tëddaat nelaw doo am wërsëg da ngay bàyyi ba yoor-yoor gi paase nga doogo sooy tëdd nga doog a tëddaat mais julli fajar rek tëddaat loolu baaxul dafay wàññi wërsëg ragal yàlla mboolem yonentu yi moom la ñu woote insa moom la woo yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ci loolu la woo mbooleem nit ñi saar bi njëkk mu di baqara aaya ba njëkk yàlla ngay tagg ñi ragal yàlla foofu mu ne alxuraan gi njub la pour ñi ñi ragal yàlla alif laam mim zalikal kitaabu laa rayba fi huddan lil muttaqin alxuraan gi nga xam ne amut benn sikk bu ci nekk mooy njub ñeel ñi ragal yàlla mu mel ni yàlla dafa bëgg a wax melokaani ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla allazina yuminuuna bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun walazina yuminuuna bi maa unzila ilayhi wa maa unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuun ulaayika ala huddan min rabbihim wa ulaayika humul muflixuun yàlla mu ne ñi ragal yàlla ñoo texe kon képp ku bëgg a texe na nga ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoo moom alxuraan kon képp koo xam ne bëgg nga ñu boole la ci axlu alxuraan na nga ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoo gëm li nëbbu ñoom ñooy taxawal julli yi tamit di julli kon ku bëgg ñu boole la ci ragal ñi ragal yàlla del julli képp koo xam ne bëgg nga ñu boole la ci la wala zine ñi nga xam ne euh, jox nañ leen luñ dundalee waaw yow mi maa yun yunfiquun lañ leen jox ci alal génnewaat nañ ko di ko dundale di ko dépenser mais najuñu ko dencuñu ko yóbbuwuñ ko ci ay banque gasuñu ay ay ay ay ay néeg ci seen biir kër di fa dugal xaalis bi defuñu ko fan yi paase rek ñi ngi wax ci information yi ne dafa am benn waay boo xam ne deux cent soixante millions la denc biir këram doom ji sàcc ko dem ak yàlla kay dana seetaan doom ji jël xaalis boobu doomu aadama heure boo demee ba nga xam ne li nga yor mënatoo ko lekk ëpp na sa dépense loolu noonu yàlla dala koo séddale lo aqu jàmbur yi ñoo nekk foofu waaye loolu doo ko mën tànk da nga ragal yàlla moo tax ñeme yàlla mooy jël ay alal gu day noonu di ko dugal ci biir néeg di ko fa denc ñeme yàlla moo tax mais soo nit ki su ragalee yàlla loolu du ko def xanaa xamoo ne nit su ragalee yàlla sax du am ñaari salaire fekk jeunes yi liggéeyuñ fii ci Sénégal jamono bu nekk cent mille chaque années cent mille jeunes ñooy génn ci école de formation yi ak ci université yi taxaw ci marché de l'emploi di wut liggéey taxaw ci marché de l'emploi di wut liggéey képp koo xam ne nag maa ngi ko wax maa ngi koy waxaat képp ko xam ne am nga ñaari salaire ñetti salaire ñeenti salaire man gis naa koo xam ne juróom benn salaire la am loolu ñeme yàlla la te jeunes yi amuñu liggéey moo tax cumul de fonction ñi ngi ñaan président Macky nga dimbali ñu ci cumul de fonction yi mu dëñ nit nekk maire wëlbatiku nekkaat ministre wëlbatiku nekkaat député wëlbatiku nekkaat euh, député CEDEAO wëlbatiku nekkaat ministre conseil kenn xamul lii lan la yor six salaire alors que jeunes yi amuñu sax luñ lekk jàng nañ ba pare amuñu sax fuñ dëkk benn waaye yor six salaire loolu ñeme yàlla la ñeme yàlla la ci réew mii ñu nekk réew moo xam ne cent mille jeunes ñooy ñëw au marché de l'emploi benn waaye am prétention yor cinq salaire loolu man su ma toogee ak président bi nga xam ne moo war a jiite réew ko loolu laa loolu bokk na ci li ma koy njëkk a wax ne ko mu dindi cumul de fonction yi bu nit nekk maire ba pare wëlbati ko waat di nekkaat ministre maire Fatick ministre la maire Kaolack ministre la maire feneen ak feneen ay ministre la ñetti salaire ñeenti salaire loolu dafa ëpp loolu ñeme yàlla mooy def loolu mais soo ragalee yàlla da tiit sax ci responsabilité bi ñu la jox taqwa noonu la mel yonentu yëpp ñoo ko jàngale moo nekkoon seen leitmotiv moo nekkoon seen devise ba ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa noonu la alxuraan waxee seen melo ku ragal yàlla rek li nga yor danga koy dundale mais soo ñemee yàlla li nga yor danga koy denc alxuraan a ko wax waxuma ko kuy xas demal xas alxuraan kuy mere mereel alxuraan waaye man waxuma ko damaa répété li alxuraan wax képp koo xam ne yor nga ay millions da nga koo war a séddale jox ko jaam ñi ñu séddoo kook ñoom waroo koo lekk Cheikhu Tidiane nag wax ne mu ne taqwa mooy yóbbal bi gën a mag mu koy digal ñëpp Cheikh Ibrahim nag wax ne mu ne foofu laay jeexale mu ne taqwa ragal yàlla mooy caabi mboolem càkkutéef yi looy bëgg rek mu ne ragalal yàlla sooy ragal yàlla di ko am alxuraan wax ne mu ne wattaqullaa wa yuallimukumullaa wallaahu bi kulli shay'in alim bëgg ngeen xam-xam ragal leen yàlla su ngeen ragalee yàlla yàlla jox leen xam-xam wa man yattaqillaa yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqu min xaysu laa yaxtasib wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbu inna allaha baalihu amrihi qad jaxala llaahu li kulli shay'in qadra képp koo xam ne yaa ngi ci ay jafe-jafe ay xat-xat bëgg cee génn na nga ragal yàlla soo ragalee yàlla yàlla génn la ci wa man yattaqillaa yaj'al lahu min amrihi yusra képp koo xam ne am nga benn gàkk-gàkk wala benn jafe-jafe wala benn xat-xat boo ne nga bëgg génn ci mu ne ragalal yàlla sooy ragal yàlla di ci génn képp koo xam ne bëgg nga tedd nga bëgg respecté la bëgg ku la ku la gis bëgg la bëgg koy waxal say wax yi neex eh, su nit ñi gisee naw la mu ne na nga ragal yàlla soo ko soo ragalee yàlla rek yàlla defal la ko yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa jaxal wa jahalnaakum shuhuban wa qabaila li taxarafu inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla kon soo bëggee tedd nga bëggu ñu respecté la bëgg ñu estimé la del ragal yàlla soo ragalee yàlla rek yàlla def la nga nekk ko tedd kon ñi tedd ñëpp dañoo ragal yàlla te teraan ter li leen jox teraanga mooy ragal yàlla ki waaye tamit alxuraan wax na ne képp koo xam ne bëgg nga yàlla di la nangul loo def rek yàlla nangu ko nanga ragal yàlla ndax innama yataqabbalu llaahu min al muttaqin yàlla du nangul lu may ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ñooñu rek ñooy ñaan yàlla nangul leen moo tax ñu bari suñ demee ba nga xam ne amuñu ijaaba la ñuy sol dafa euh, lewut la ñuy lekk dafa lewut la ñuy naan dafa lewut dañoo ragalut yàlla mais képp koo xam ne ragal nga yàlla loo ñaan yàlla nangu ko képp koo xam ne tamit bëgg ngaa nekk waliw na nga ragal yàlla kun ragalul yàlla mënoo nekk waliw kon képp koo xam ne am na ragal yàlla rek xamal ne waliw la mais koo xam ne nii amut ragal yàlla ñeme na yàlla lu ko neex wax lu ko neex def fu ko neex defee ko fa kooku xamal ne du waliw alxuraan a ko wax ala alal awliya allah laa xufun alayhim wala hum yaxzanuun walazina wa kaanu yattaqun allazina amanu wa kaanu yattaqun ala anal awliya allah laa xufun alayhim wala allazina amanu wakaanu kaanu yattaqun waaw kon képp koo xam ne bëgg nga wilaayatu na nga ragal yàlla waaye tamit képp koo xam ne bëgg nga di ànd ak yàlla loo dugg yàlla dugg ci ak yow na nga ragal yàlla inna allaha mahal muttaqin yàlla mi ngi ànd ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla képp tamit koo xam ne bëgg nga yàlla bëgg la nanga nga ragal yàlla inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla dafa bëgg ñi nga xam ne da dañoo ragal yàlla képp koo xam ne tamit bëgg nga mujj gu rafet te moo gën a jafe fi mu toll nii ci kaw suuf mujj gu rafet xam-xam mayewu ko alal mayewu ko ay milliardaire di nga leen gis seen mujj rafetul di gis boroom xam-xam yu bari seen mujj rafetul waaye soo bëggee am mujj gu rafet ragal yàlla rek moo ko mën a maye wal aqibatu lil muttaqin loolu la alxuraan wax ragal yàlla ñi ragal yàlla ñoom ñooy am mujj gu rafet waaye képp koo xam ne bëgg ngaa mucc ci safara bëggoo dugg safara nanga nga ragal yàlla ndax alxuraan wax na zuma nun ji lazina taqaw dinaa sowe ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñooñu duñ du leen bàyyi mukk ñu dugg safara waaye kër gu mu jege di àjjana képp koo xam ne bëgg ngaa dugg àjjana na nga ragal yàlla ndax alxuraan wax na mu ne wa saarixu ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu leen mu muttaqin ñi nga xam ne dañoo bëgg a dugg àjjana nañ ragal yàlla ndax ragal yàlla yàlla mi ngi ko dikk ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla donc Mawlana Cheikh Ibrahim loolu la wax wasalaamualeykum wa rahmatullah